waaw lu fi xew daal demeewul neen ñun dañoo ñëw yegg si même pas cinq minutes mais bu ñuy taxaw moom ñu ngi gis waa ji muy def demi tour bi dugaat si kër bi si la ñuy dem toog fee maag sama waa ji même pas cinq minutes ab booy bu taxaw si kaw terrasse bi yuufu jàpp leen jàpp leen si laa daw topp si ginnaawam seen ko mu ngi yor benn paaka bu weex ma daw ba poñee ko ginnaaw ne ko lan la mu ne ma damaa rey nit ma ne ko dangaa rey nit mu ne waaw ma ne ko kon dañ lay rey si laa ko dóor ñu songoo ñi njëkkante paaka bi maag moom si la sama waa ji ñëw daw ne kii rey na nit femme bi exact xaw ma nu muy liggéey waaw. Ah. Ah. bu ma waxee rey naa nit si ko si laa ko dóor. am benn booy bu tudd Fallou génn fekk ma fa maag moom ñoo ko dóor ba dugal ko si kër gi. Mm-hmm. si nañ ko dóor ba takk ko. si la nit ñi commencé ñëw nag. Mm-hmm. mais man bu ma yéegee si kaw ba gis ndaw si mu tëddee ma wàccee dama ko dem rey mais paa si boppam a koñ waa koñ yi maire yi. ñoo ñu téye baale leen am na loo xam ne du liggéeyu police. Mm-hmm. gis nga nit su rayee nit dañ koy rey dañuy waxante dëgg. kii bi kon bi nga yéegee si terrain fekk nañ Ndiaye moo ko xëcc ba si kaw si dër bi leen dret mu mel ni maanaam yaa ngi tiim sa gëléem la ray gis nga suñ ko rayoon tey jii du demee neneen police jàpp nañ ko lu yàgg police di koy soog a jël même sapeur avant woo nañ ko ba sonn mënuñu leen jot papaam ni ñu mujjee woo papaam moo daal otom ñëw fii kii moo ko wàccee si kaw dugal ko si 4-4 tali bii nii tali bii tali bii bëri na agressé fii moom dañ fiy agressé mais ray moom c'est la première fois yéen ñëpp di ñaan tali ngeen am tali tali bi di bu fi indee lii tali bu mu paree moom bu dëgg bëccëg gaa dañuy agressé dañuy agressé dañuy xanaa amul ay lamp amul lamp dara xam na loo xam ne nag maanaam jeune koñ bi ñoo ko war a taxawoo muy sécurité koñ bi ñun ñoo si war a lañ tase mu may naan yóbbaale ma police ma ne ko mënu ma laa yóbbaale parce que nii laay aw mënu génnee benn passeport ne ma damaa am problème yóbbu ma police ma ko sa waay man mënu ma laa yóbbu police si loolu laa ko xàmmee leen sànq nag ñi croisante fii ma ne kii xàmmee naa ko ma ne Diop waa ji da nga ko xam hmm. Diop kii xaw ma ko ne ma ne ko kii est ce na mu ne ma non kii su tamit léppam ñëw si waxtaan boobu sawaay di dal sama kaw ne ma su la nit arrêté da ko yóbbaale te yàlla tax nee na ngent la dëkk moom démb loolu la mu wax nee na ma ngent laa dëkk mais dama fi ñëwoon bi dama fi am problème waa ji si ay trente ans yooyu lay toll jeune la ko waaw la rek mooy tey ñun war nañoo fexe ba ku ray rek ñu ray la wax ci jeex ku rek ñu ray la parce que tey tey zone koñ bi dañ jëloon décision pour ray ko famille ñoo taxaw di en tout cas loolu non du fi amee du fi amee mais loolu moom loi boobu lañ bëgg mu am ak ku ko mën a dégg nag ku ray ñu rayal ak fépp nag ku mënti doon. waaw loolu moom jeune pas mënu si xam dara parce que maa ngi koy door a gis tey te aussi tamit man boobu dama nekkoon si pression parce que man maa ngi doon sauver ñoo nekkoon si waa ji a nekk ci concentration di ko sauver waaw moo tax nekkoon si kaw ñun bu ko police jàppee dof la dem teg doful jinne jàpp ko seen famille ku ko si wutal kayitu dof ba ñu libéré ko si dëkk bi nañ dëkk fu ñu dajeek moom muy dox si dëkk bi dañ koy rey loolu na leer comme ñu jëm kaa wutal kayitu dof naan dafa dof doful jinne jàpp ko ku ne ma rey naa nit yóbbu leen ma police kooku dof na a ah, ku na rey naa nit def lu muy def bàyyi ba koñ bi kan bu lu muy def daa bàyyi boo xam ne deux heures jot na élèves yi wàcc nañ nit ñi dañuy dal dallu rey nag moom ñun moom vraiment ñun ñu ko supporter moom ñun moom na leer mënuñu ko supporter Thank you.